dañu ñëwoon tey délégation Yewwi Askan Wi nga xam ni président Khalifa Ababacar Sall moo ko jiite ñu ànd si ak le président Ousmane Sonko ànd ak le président Cheikh Tidiane Dieye ànd si aussi ak la Lionne du Bawol la présidente Aïda Mbodj ak euh, député yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ci département de tiwaawan ak aussi maire yi nga xam ni ñoo fi nekk ñoom ñëpp jóge ci Yewwi Askan Wi ñu ñëwoon indi sunu ziar kenn umpalewul gàmmu gi li mu doon ci communauté musulmane kenn umpalewul li mu doon également fii ci Sénégal te bu gàmmu ñëwee xel yëpp dañuy daj Tivaouane moo tax ñu yegg si fii bi ñu yegg nag. gis nañu suñuy sëriñ sëriñ euh, Abdou gis nañu également suñu sëriñ sëriñ Maodo si ñoom ñëpp ñu teeru ñu teral ñu ñoom ñëpp tamit ñëw wax ak ñun ñu li nga xam ni moom la xaar ci ñun fàttelu également li nga xam ni moom la ñu bëgg muy réew jàmm daje nag ñi nga xam ni jàmm rek moo leen tax a jóg muy coalition Yewwi Askan Wi kon di profité également ci li nga xam ni moom la sunu borom digle ci bis bi ci mbaax digle ko également ci xéewal yàlla na xéewal yooyu yëpp wasaare ci biir Sénégal sénégalais bu ne foo mën a ne ci biir réew ak ci bitim réew mu mën a yegg si ci yow jërëjëf. xam nga dangeen ñuy may lenn bu ñu ñëwee ci bis yu nu mel. nga xam ni bisu diine la àdduna bi taxaw di ñu déglu ñëpp may nopp senegal ndax ni fi yàlla wàcce ci nit ñu baax nitu diine bu ñëwee ci bis bi ñu mel dangeen ñuy may suñuy déclaration ñu yemale ko ci loolu kon di ñaan encore une fois yàlla na jàmm yàgg Sénégal yàlla na sunu mag yu baax yi sunu sëriñ yu baax yi ñu fekk ci tey yàlla na suñu boroom kattanal leen dëgëral leen dolli ci ñoom wér dolli ci ñoom gudd fan ba seen mission nga xam ni dafa dépassé tey Sénégal ñu koy xaar biir àdduna ba seen mission boobu ñu mën koy yeggale ak sago jërë ngeen jëf.